قلبي أما جات أما جات منا وتجف الطفل قايل الواخ وخبي واو واو يوم في جرتا جا نيب جا في كلغي فوق بيت بنت فوق نوانا يا نتفلي تاي بنت يا نتكو وقت جاكو Sall ah bii mu la cuune 2012 ba léegi Sénégal rek moo ko fi indi. Euh, jàpp leen ci sama gaañi sama gars ñi dem leen nelewaay te yàlla ji tax xoolal su benn groupe wàcc koo te léegi ñeneen ñi topp leen groupe bi sama groupe bii rek bu ñu wàcc koo rek léegi ñeneen ñi topp leen waaw waaw Macky ci kanam nous apercevons à côté de Mam du Parti démocratique sénégalais oh. qui a créé son parti tout récemment waaw kongu nii. Mame Diarra Fam bu parti démocratique député à l'Assemblée nationale moo toog nii. mais bii moom man maa leen ko ñaan man je suis Baba Touba Bati monsieur Déthié Fall. man la seen xarit mi nga xam ne moo créé parti politique am tout récemment. jàpp leen ci kii yàlla ngeen dem ba léegi. sama gars yi. jàpp leen ci rek ngeen dem ci kanam. maa ngi poche su tàngal ku dem fële dinaa la may tàngal dem leen ci kanam. tàngal bong bong si ci sama poche mais ku ci bëgg a am da ngay dem ci kanam waxal ak ñoom. Eh, ku bëgg Ousmane Sonko rek ku rek demal ci kanam. Voilà l'ambiance qui se trouve ici. Dimanche Biscuiterie Reflet Dimanche Des Échos Dimanche Sigelec Dimanche Excelec Dimanche Brioche Dorée Eiffage Marine Dakar Naaf ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye est-ce que xam ngeen loolu ban conséquence la indi loolu dafa waral famille yu bëri tas nañu ci jamono Macky Sall loolu dafa waral. de famille yu bëri famille yu bëri tax nañ leen gën leen ci location yi nga xam ne ci appartement wala ci kër yi ñu lee woon dem nañ ba amatuñu lañ ko fayee ndax amatuñu liggéey ndax liggéey ñu amoon Macky Sall nangu la ma ci seen loxo. Macky Sall nga xam ne keroog le 23 juin 2011 moom moo àndoon ak askan bi gëm loolu leen ne leen. moom li mu yaakaaroon ne moom li mu gëmloo woon ak li xew tey c'est diamétralement opposé ndax askan boobu tey ñoom ñoo nekk di souffrir di souffrir mu leen di humilier chaque di jël ay nitam di teg suñu kaw tey man damay invité liggéeykat yi nekk ci réew mi yëpp dañuy dund injustice nañu fexe boole suñu doole yàlla xam na ne may ñëw ñu bëri ñoo ma ñu ne ma Assane bëgg nañu ñëw waaye paas bu ñu indaale sax amuñu ko ndax amatuñu liggéey ñu ne ñu waaye nous sommes de tout cœur loo xam ne bëgg ngeen. parce que ñaari nekk si ngeen sori yëpp teeru ma. lima ma di wax rek mooy li gis tay dafa dal sama xel parce que yéen ni ku leen gis xamni ni yéen ngeen pour que lum ko jaral mu jaral lim lol mo amu ci lumay waral lumu ko jaral pour jema yak suñu dekk lumu ko jaral pour jalgati suñu constitution pour def troisième mandat dinañu ko jaral pour ñu xex ak mom dem déjjati ci pale bi jox réew mi koo xam ne la sénégalais andal lol moy dekk léegi nag moo tax ma ni sénégalais yi bu kenn layam layami bu kenn layam layami nañu taxaw taxaw dem jàmmarloo ak moom xeex ak moom wan ko ni réew mi muumu ko mandaam jeex na ñaari at moo ko dese dañuy abal ñu fal keneen mu jiite sunum réew tegaat ko ci yoon madem madem. Madem, madem, madem, madem, madem. Merci beaucoup. ñoo euh, di lakk italiano oh, nous voulons de la mafia du. Allô? Kati va faire fuir la mafia du 7 et du 4, Nos troisième mandat. Ah, en tout cas, ambiance bi daal moo actuellement c'est terrain de football en face de l'estade de l'amitié. je suis prêt à nañu sax ñu ngi tas t-shirt je suis prêt Sénégal tant pis voilà. mais li tax nga wax nuyu leen. parce que du xel. Hmm? le 23 juillet 2011. Ah. lii lañ doon xeex. Hmm? moom moo ko jiite woon. Hmm? moom moo ko jiite woon. le non M23 Macky Sall moo ko joxe. moom ba léegi encore bëgg am troisième mandat du am. du am. c'est une question de presse te moom moo ko wax ba pare. Ah. te gëm nañ ne sax li mu wax dina ko respecté. ñaari mandat la monsieur Ndiour nee na Macky Sall moom moo ko wax moom moo ko ah du samay kàddu nag ay kàddoom la ñoom ñu ngi ñëw seen i affiche ñu ngi voilà. Les raisons de ma présence ici, c'est mhm. d'apporter ma, solidarité mhm. à cette mobilisation euh, pour préserver les acquis démocratiques mhm. le président Macky Sall est en train de remettre en cause euh, un à un. Euh, et c'est pour faire bloc avec ce qui ont appelé à la mobilisation, pour lancer un message fort, très fort, au régime en place, qui ne cesse de menacer la jeunesse de représailles au cas où il y aurait encore des événements. Je pense que ça ne se passera pas comme ce le cas le mois de mars. Mais nous sommes là

président Macky Sall ak ay ñooñu ñu ngi koy salfaañe loolu moo waral suñu teewaay fi parce que président Macky Sall askan bi daf ko jox lépp mu jël lépp di ko xeexee askan bi maanaam ay force de l'ordre ba di ñuy tëkk naan ñu lu fi amoon du fi amaat ñu ñëw fii pour fàttali ko ne ko li fi li fi nekkoon mois de mars mu ngi fi ba léegi te incha allah bu delloo buum ci boy boy ba liggéey bi nañ ko àggali parce que moom daanaka dëjjati woon nañ ko ba mu jonkan mhm. mu jonkan xam nga boo ko poussé rek mu toog mhm. sëñ Muntaxa foofu la téye suñu loxo mhm. mu may ko mu toogaat bër naan daf ñuy menacé kon tey jii dañ koy fàttali ne ko askan bi moo yore kaddu bi moo yore baat bi moo yore doole gi du armée du police du gendarmerie moom génnee na mois de mars police gendarmerie ak ay nervem mais terewul dafa négocier eh, dañ ko woon bu déewu bëccëg kon na bàyyi loolu xel xam ne le peuple force de l'ordre mënulul askan bu déterminer mandat askan jox ah, ah. mais monsieur Seng, euh, quelles sont euh, les impressions que vous avez euh, vis-à-vis à la date de ce 23 juin. bon ça fait confusion ça fait confusion parce qu'il y a des gens qui commémorent oh, ben bah, le le 23 juin hein. comme une date d'une conquête démocratique donnée. Mhm. actuellement nous sommes à d'autres phases de conquête. Mhm. malheureusement. Cet appel d'aujourd'hui coïncide avec cette date symbolique du 23 juin, mais je crois qu'il n'a rien à voir avec une affaire négocier ko le peuple est souverain force de l'ordre nous askan bu déterminé dara mandat de askan moo jox bu ko mais monsieur quelles sont les impressions que vous avez vis-à-vis à la date de ce 23 juin Bon, ça fait confusion. ça fait confusion parce qu'il euh, y a des gens qui commémorent le, 23 juin comme une date d'une conquête démocratique donnée. Mhm. Actuellement, nous sommes à d'autres phases de conquête. Mhm. Euh, malheureusement, cet appel d'aujourd'hui coïncide avec cette date symbolique du 23 juin. Mais je crois qu'il n'a rien à voir avec une commémoration du 23 juin. Mhm. Mais je crois que c'est une mobilisation pour rappeler au régime que le peuple est là, souverain, le peuple est là à attendre euh, que ses acquis et ses droits soient respectés. C'est-à-dire que les primo-votants soient versés dans le fichier électoral, les non-inscrits soient versés dans le fichier électoral, que le fichier électoral soit audité, qu'on retienne des dates claires d'élection auxquelles tout le monde participera. Ça, c'est notre droit le plus absolu et c'est ça qui rend le rapport entre les les hommes politiques civilisés. C'est Ceci qui rend le climat social apaisé. Mais tout autre stratagème qu'on mettra en place pour empêcher le vote pour décaler le calendrier républicain sera à l'ordre public euh, et, d'atteinte à la sûreté de l'État, dont se rendront euh, coupables le président Macky Sall et son régime. Mais quel message vous lancez à la jeunesse sénégalaise de, votre présence ici aujourd'hui Je remercie d'abord la jeunesse parce que c'est elle qui nous a libérés de prison, je lui lance le message de rester mobilisé, que la jeunesse reste mobilisée, que le vrai combat est à venir et devant nous. Mhm. Le vrai combat mhm. est à venir et devant nous et la, jeunesse doit rester mobilisée mhm. parce qu'elle est le fer de lance de ce combat, elle sera toujours le fer de lance de ce combat. Elle, est dépositaire de la souveraineté populaire, la jeunesse. J'ai plus de 70% de la population quand on considère la tranche de 18 à 40 ans. monsieur la Sène maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen ziar. tey mën nañu xam lan moo waraloon sa déplacement ñoom fi nga xam ne mooy ci Grand Yoff fii de euh, dafa am kuréelu opposition bu woote ñu def benn rassemblement M2D donte ñun bokkuñu ci. wareef la ci ñun fépp fu ñu woote pour taxawal Sénégal wala taxawu Sénégal ñu taxaw fa loolu moo waral sama teewaay fii euh, pour répondre à l'appel à la mobilisation euh, du M2D en tant que koo xam ne fekkee woon nga 23 juin 2011 ak Tay 2020 lan moo changé ci non man du ma méngalee ñaari date parce que euh, nanu ñëw fu muy xewee nanu ñëw fu muy xewee jóge leen ci buntu kër yi jóge leen ci alentour nanu ñëw fu muy xewee Sénégal mosula naqadi ndax lu waay di jaay nit a ki koy jënd di maye nit a ki koy jënd di maye loolu mooy réponse bi Sénégal Moussoula, naqadi ndax lu waay di jaay nit a ki koy di maye Sénégal nan le peuple est souverain ce pays nous appartient ce pays appartient au peuple aux vaillants soldat sénégalais kan moo moom Sénégal. le peuple. Euh, euh, national jigéenu Pastef ànd ak le président Ousmane Sonko teew fi tey nag ànd ak jigéen ñëpp gis ngeen leen ñii ñu sol seen yu def ba mu baax pour ñëw wuy si accompagner le m

nee na dégg naa li ngeen wax waaye man xam naa ni déggu dara donc genre manifestation yi li koy wund mooy une jeunesse mécontente mooy jigéen ñi nga xamante ñoo nekk ci kër yi ñoo war a téye njaboot itam jaaxle nañu kontaanuñu mag ñi nga xamante ne aussi couverture sociale bari war loolu na ko koom kontaan kon bu ñu neexee ñu ne Sénégal Tamp mais Sénégal Tamp du wax kese dafa ànd ak jëf dafa ànd ak action kon tey m bu wootee dañ cee war a am taxawaay bu mat sëkk ndax en tant politique mais en tant citoyen en tant que en tant nationaliste képp ku nekk Sénégal gii lii ñuy xeex war naa doon sa itte ndax Macky Sall kat fi mu jëm ak ñun gis ngeen ni Mingi a renforcer son dispositif militaire son dispositif de sécurité pour nous protéger comme on ah, ñu ngi jël ay qui bi bàyyi leen ñuy dal ci policiers wala ay ay gendarme du ñu sañ a wax parce que dañu ragal on les comprend parce que xam nañ ñoom bëgg nañ seen réew waaye bu ñu nangu mukk kenn di leen digal pour ñu jël yar wala ñu jël gànnaay di ko teg ci kaw sénégalais yi di ko teg ci kaw seeni jigéen seeni yaay seeni rakk mais ci seeni doom parce ñiy xeex du kenn ku dul ay sénégalais amuñu lu dul Sénégal Sénégal bu tàkkee du ñu am fenn fu daw duñu am fuñ koy waxee kon nag dinañu xeex ba réew mi changé bëgg jël askan wi nag mettre leen face à face Maintenant, les forces de l'ordre et la population le président vous am yërmande du ko le président vous démocrate du ko le président pour am yërmande askanam parce que Macky Sall son gros problème c'est ça amul yërmande ci sénégalais avec le m avec tous les fronts de l'opposition qui s'organiseront pour que l'opposition soit non seulement euh, euh, dénoncée mais la riposte moi, lu ko bañ lu mu ñu teg te jaaduwul dinañ ko bañ ñoo ko fal kon ñoo koy wax ni muy mais c'est pas le ñoo ko fal ñun ñoo koy wax fan lay jaar te loolu lay def non seulement def loolu mais wëlbatiku na léegi nag di ñu jaay doole dinañu fi fekk bugguñu ay bugguñu coow mais Macky Sall lu mu ko jaral jaral waaye incha allah troisième mandat du fi am ndax moo waral mbaboor ñëpp waaye lenn dinañ ko ko xamal Macky dugg na ñu te bu soobee yàlla.

et c'est Pikine TV yite askan bi rek moo ngi tax di jóg moo ngi nii